voilà ndeysaan ñoo ngi fi ak suñu mag Malick Thiandoum Maodo Malick Thiandoum di suñu mag ndeysaan di ku xam-xamam màcc jëm ci wàllu làmb grand tey nan nga gisee première journée drapeau chef de l'état bi waaw journée bu riche enseignement bi nga xam ne moom lañ ci tiré d'abord mooy Diourbel perte na titre bi nga xam ne moom la yoroon te jëloon ko daaw ca Kaolack ah, ñi nga xam ne ñoom ñoo leen éliminé mooy Fatick ah, mu nekkoon compétition bu bëri woon coow Euh, coow li d'abord mi ngi am ci premier combat bi muy 66 kilos bi am na recours am na appel ñu woowaat leen ñu bëree waa Diourbel euh, ñàkk ci kanamu Fatick. Euh, am na aussi beneen moment bu nga xam ne amoon na jafe-jafe ndax ci wàllu 86 kilos bi Diourbel dafa am mbër bu nga xam ne moom la ñu bindoon mais mbër boobu am blessure dafa lakk ñu remplacer ko par beneen mbër bu nga xam ne déclaré wuñu ko woon. loolu moo indi woon coow li ba mu am arrêt bu yàgg mais finalement comme mbër boobu rëcc na ba egsi ba demi final il fallait que ñu bàyyi ko mu bëre biñ ko bàyyee mu bëre nag malheureusement mu ñàkk donc Fatick mooy surprise bi parce que Fatick aussi dafa nekk euh, région bu nga xam ne dafa bëri ay talent mbër ku ne xam na ni drapeau chef de l'État Fatick da ci tegoon loxo mais depuis quelque temps dañu xaw a dellu ginnaaw Thiès jël na ko fi Diourbel jël na ko fi mais Fatick dellusiwaat na au premier plan Dakar aussi gis nañu ni am nañu équipe bu baax équipe bu homogène ñom tamit ñafé nañu ba dem final mais final bi mo nara metti digënté Fatick ak Dakar final bu metti lay doon suba également wala bok euh, samedi dinañ am compétition bu neex parce que li nga xamni CNG da ko ci duggal muy nouveauté moy open bi open bi daana am bu njëkk mais dañ ko indi indiwaat moy plus de 100 kilos yi dajé ci seen biir lolu nak bo xolé catégorie bi fi nekk xol qualité mbeur yi fi nekk nga gis fi Doudou Sané ah gis fi euh, euh, Serigne Ndiaye gis fi doomu doomu doomu Robert bi mom tamit mi ngi fi ah, nga gis fi euh, ku Bousso Mohamed Bousso donc loolu yëpp dafay wane ni ay compétition yu relevé mom lañu nara am en tout cas sur le plan de la compétition machallah organisation bi amna solo public bi également ñëw nañu donc meun nañu wax né Djourbel mi relever le défi de l'organisation mais sur le plan de la participation perte nañu titre Euh, euh, détenteur drapeau chef de l'État. dëgg la mais grand bu loolu weesoo tey dañu fi gis Eumeu Sène mu ñëw def fi lu rëy def fi lu rafet yëngal public bi bàkku ñëpp ñëpp jug di ko tàccu lan moo waral gisuñu yeneen mbër yi. waa yeneen mbër yi gisaguñ leen mais Eumeu Sène dañuy magnifier li mu def te c'est pas la première fois moo xam tournoi CEDEAO la wala drapeau chef de l'État. à chaque fois day ñëw bégal public bi parce que ñi leen sopp dañoo bari ëmma bari na ay supporters yu nga xam ne ñi ngi Jurbel musuñu koo gis tey gis nañ ko mu ñëw bégal leen mais relation yi mu am également ak ku mel ni ministre des sports Ba loolu moo gën a yokk a tax mu ñëw mais woyofam dafa war a jox exemple ténor yëpp parce que drapeau chef de l'État événement la bu nga xam ne mooy événement bu gën a mag ci saison de lutte bi donc ñoom ñi nga xam ne ay ténor lañu war nañu mën a ñëw dooleel xale yi encourager leen bu euh, CDAO amé dañu wara a ñëw encouragé leen ñu xaar sax ku leen invité wala ku leen woow ndax ñom euh, ay royu way lañu ay leader lañu ay porteur de voix lañu dañu war di ñëw Eumeu sen joxé na le bon exemple on espère que dimanche ci finale yi ah yeneen bari yi dinañu ñëw loolu la Eumeu sen annoncé mais tous les ténors dañu war di teew ci lu melni parce que ñi leen sop bari na ñi leen bëgg bari na te ñoom ñooy dundal làmb mais bu ñu toogee rek bàyyi ni làmb dina dee. jërëjëf ndeysaan jërëjëf gis ngeen kàddu yi mu nekkoon sunu mag mu nekkoon sunu mag Malick Thiandoum di ku xam-xamam màcc ci wàllu làmb suñu mbokk internet yi tey lii lañ leen indiloon ñoo ngi fii ci Diourbel 22e édition drapeau chef de l'État ah, tey gis ngeen ni mu demee demi-finale yi diggante Dakar la. ak euh, diggante Dakar la ak Fatick ñoom ñaar ñoo dem ñoo dem final kon du ñu def lu dul di leen toppal li nga xam ne que nii moo fi jot am ci suba fii ak suba ak ginnaaw suba incha allah.